بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله ñu ngi sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi di julli di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan borom bi dëkkee dotti waamem xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim ci sunu bindab tafsirul quranil azim borom bi defaloon ñu tawfiq ba ñu legs ci laayey fukkeel ak juróom ci suratul fatxi borom bi def na tawfiq am na ñaari bind ci suratul fatxi muy saar wu màgg wala sax ma ne ba ñetti bind ndax bind bu jëkk ba ñoo ngi ko defoon ci sabab si tax saar yu wàcc muy suratul fatxi nga xam ne daanaka day nekk diggante nekk darsab tafsir ak xayaatu saxaaba ñaareel bi ñu ngi ko def ci ak ñetteel bi ci tafsir laay yi nga xamante ni moo jiitu ci bopp saar bi kon tey bi xusne tawfiqi lbaari jalla fi ula noo ngi tàmbalee ci laayey fukk ak juróom mbenn ci suratul fatxi muy fi sunu boroom di waxee subhanahu wa taala audu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا kon laaye jooju di laaye ñaar fukkeel ak ñett mooy sunu taxawaayu bind insha allah ci suratul fatixi bu ngeen àndee ñu fàttaliku dinañ gis ni saar wii di suratul fatixi saar wu màgg la saar wu rëy la waaye am njàngale mu ñor mi ngi ci biiram bu ñu àndee ñu fàttaliku ca qissatu sulxil xudaybiya bi ñu koy leeral leeral nañ lan mooy sabab sa ba tax saar wi wàcc waaye waxoon nañ ni bind la boo xam ni fees na dell ak i jàngale cofoon nañ ca lenn aman na la ca des ñàkkul bind dina mës a ñëw boo xam ni ay duruus lay doon ak i ibar yoo xam ni mustafaadatun min qissati alxudaybiya ci laayey fukkeel ak juróom benn borom ba subhanahu wa taala di wax ak gaa yi nga xamante nii ñoom ñooy naafiq yi waaye nag di wax ak ñi gëm yàlla tamit bu dee naafeq yi sunu borom di leen wax yeddaange ji leen dal tey li leen ko yóbbee mooy ñàkk a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee yéen ñi gëm yàlla xéewal gii ngeen am tey ci fatxu xaybar ak sulxul xudaybiya li leen ko may mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy furqaan bi nekk ci bayna al muminin wal munafiqina wal kafirin borom bi subhanahu wa taala ginnaaw bu mu ñu leeralee ni ñi nga xam ne dañoo tardé woon ca sulxul xudaybiya ah ñoom day dañoo commencé di wax jullit ñi naan leen bu ngeen dee demati foo xam ni am mànga nga fa de bu yeboo ngeen bàyyi ñu ànd ak yéen sunu borom ni déedéet ñoom kay kon seen intérêt moo leen tax a jóg waaye duñ leen topp bu mukk loolu dogalub sunu borom la su ko defee ñoom it duñ am luñ leen fayee lu dut naan leen bal tax su dul na da ngeen nu koo añaanee rek. sunu borom ni bal kaanu laa yafqahuna illa qalila ñoom kat dañoo xamut waaye bu ñu xamoon danañ xam ni lii mooy dogalub sunu borom ci ni ñoom màng mi araam na ci ñoom waaye xéewal ak waa sulxul xudaybiya la woon ca xayba sunu borom ni su fekkee ñoom li ñuy wax ci seen làmmiñ yi dëgg la ci ñoom qul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lil muxallafina min al arab ci gaa yooyu nga xamante ni al arab baatu arab arab bu ko waxee mu ngi ci namu kaw kaw arab bu ne al arabi mooy kaw kaw fii nag aaya ji la muy tekki mooy kaw kaw ya nga xam ne ñoom seen ngëm yàlla dëgërul woon wala lenn ci ñoom ak nifaaq moo nekkoon ci ñoom te wax naa leen naafiq moom benn saxaab bokk ci muhaajirun yi amu ca walhamdulillah ca madina la amee te bokkul woon ci saxaabal fudala waaye mi ngi nekkoon ci naafeq yeeg arab yoon yi nga xam ne dañoo tuuba dugg ci lislaam nga xam ni jébbalu nañ lañ wax rek waaye ngëm nga tàbbiwut ci xol ba suñu boromu ni yonent bi qul waxal lil muxallafin ci gaañooñu tarde min al arabi ci naafeq yi ci niti kaw yooyu nga xamante ni ñenn ci ñoom ay naafeq lañ nee leen sa tudawna deef na leen woo da ngeen a bëgg ku leen yóbbaale rek sa tudaaw na dee dinañ leen woo ci daje boo xam ni ila qawmin dañoo jëm ci aw nit ñoo xam ni uli basin shadid ñu tar lañ ñu soxor lañ ci kaw jullit ñi comme da ngeen a bëgg a dem rek sooba yàlla dinañ leen woo ci ay nit yoo xam ne dañoo soxor lool ci jullit ñi allahu akbar maanaam laaye ji ci boppam yar la buy dal ci ndiggal ña doon woote woo ngëm te ngëm nga dëgguut ndax nee nañ yonent bi saa sallam su ngeen dematee ci am màng na ngeen nu woo yéen jullit ñi yonent bi ni su dee li ngeen di wax ni ba ngeen topp yonent bi dëgg la yëg leen ni danañ leen woo ci aw nit woo xam ni dañoo tar lool soxor lool tuqaatiluunagum da ngeen di xeex ak ñoom aw yuslimun wala ñu dugg ci lislaam loolu mooy lan mooy bu fekkee ñoom dañoo am doole dañuy lànk bañ a joxe garag te su boobaa tuqaatilunahum kon da ngeen di xeex ak ñoom aw wala boog yuslimuun ñu néew doole xam ni bu ñu tuubut jullit ñi rey leen ñu tuub dugg ci lislaam fa in tutiicu bu ngeen toppee yàlla akub yonenteem ca woote booba mu ne yutikum allahu ajran xasana yàlla nee na kon de dinaa leen fay tiyaaba yu bare bare bare yu rafet waaye wa in tatawallaw su ngeen wanee gannaaw kama tawallaytum min qabl comme ni ngeen wanee woon gannaaw keroog sulxul xudaybiya yuadibukum yàlla ne dina leen mbugal adaban alima mbugal metti laaye ji borom xam-xam mufassiru ni am nañ tuuti juuyoo ci ñan la yàlla namb ci qawmin uli basin shadid nit ñoo xam ne dañoo tar lool ñenn ñi nee nañ giir gu ñu wax hawazin la woon ci arab yi nga xam ni ay yéefar lañ woon yu tar soxor lool ci jullit ñi loolu toxal nañ ko jëlee ko ci Shu'ba mu jëlee ko ci Abi Bishr mu jëlee ko ci Saïd ibn Jubayr ak Akrima am na beneen riwaaya bu ni giir ak Thaqif la loolu toxal nañ jëlee ko ci imam Dahak am na ñu ne ñu ngi ci nam banu xanifa te xam ngeen banu xanifa ñu saay saay lañ woon moo ñu julli ñi dajee woon ca ca qitaalul murtaddin musaylimatul kazzab jiite leen ñooñu ñooy banu xanifa gis nga musaylimatul kazzab bi muy woote mbooloo mi ko topp ay téeméeri téeméeri téeméeri junni lañ yu gëm ni moom ab yonent la musaylima ay téeméeri téeméeri jullit yu gëm ni musaylima yonent la ñoo ko toppoon musaylima yonent la ñu défendre ko jaral na leen ñu dee tey loolu tax xeex boobu metti woon xeex bu metti la ñu jàng histoire xam nañ ko qitaalul murtaddin ca ba ñuy xeex ak musaylimatul kazzab giir ga ànd ak moom di banu xanifa xeex bu metti la woon xeex bu metti ba jéggi dayoo la ca faatu ci ay julit bari na lool waaye la ca faatu ci ñu mokkal alquran sax nag dañoo bari tamit tëj xam ngeen ni ca la ah saxaabi bu màgg ba faatoo Salim Mawla Abi Xuzayfa nga xam ne ca min kibaaril xufaas yi la bokkoon. gis ngeen ca gannaaw ba sax nag ca lañ daal di jóg ni alquran jii nag bu yeboo nañ ci jóg maanaam xeex bii ma lay wax nii moo sababoon sax ñu ne nag nañ dajal alquran bi léegi def ko kaamil ndax fi mu toll nii yëf yi moom. fekk dajale woon nañ ko dajale gu yamamaay rek waaye dajale ga tax ñuy wax nag ci jamonoy Aboubacar mi ngi amee woon ci ginnaaw xeex bi waaye alhamdulillah jullit ña sonn nañ ca lool waaye ci tawfiqi suñu boroom ak ndimbalam li mu jaarale ci gayndeg suñu boroom gi muy jaasi yàlla ji ñu bocc ji di Xaalid ibnul Walid jullit ñi gañe leen duma leen duma yu métti ca la wax si rayee woon waa ju bon jooju nga xam ni moo doon woote ak nubuwa muy Musaylima al-Kazzab xeex bu metti la woon moo tax gis nga yu mel nii mbokk yi léeg-léeg moo xam ki mën a nafar nafaral boppam ci téere histoire dafa am solo ki ko mënoon muy déglu dars yi nga xam ne day xayaat saxaaba ak am solo wallahi ci ngay xam ne jullit ñi daje nañoo ak yéefar yi ay daje yu metti am na ci borom xam-xam yi ñoo xamante ni ñoom dañoo wax ni waa Faris la loolu tax nañ ko jëlee ko ci Ali ibn Abi Talha ci lenn ci ay riwaay di jëlee ci moom te xam ngeen ni furs furs ak ruum muy waa Perse ak romain yi gis nga li tax xeex ak ñoom jafe woon mooy stratégie bi jullit ñi xamoon di ko xeexee du stratégie boobu la ñuy di xeexee mi ngi mel ni su ma la doon jox misaal mi ngi mel ni ñu ne ñii ñoom dañoo yor ay chars de combat ak i fital ñee ñoom yore ay ay ay jaas yi xam nga ñooñu mënuñoo xeex gis nga bokk na ci xeex yi gën a metti mooy xeex bi jullit ñi dajee waa force waaye nag lillahi darru asadillah wa sayfillah xaalid ibn alwalid maanaam la la aboubacar doon wax naa aqumati nisa an yalitna mithlu xaalid aboubacar dafa xool xaalid ba mu yàgg mu kontaan mu ne wallaay jigéen ñi jaasir nañ dootuñ mën a jurat doom ju mel ni xaalid lu ko waral mooy saxaaba yi ci seen jëmmi bopp bu ñuy nettali xare yooyu dañuy wax ni su fekkoonte ne ñemee xuus ci biir noon yi mooy tax a dee kon Xaalid lu muy njëkk a dee ndax fit wi ak njàmbaarte gi ak dëgëraay gi comme ni ngeen ko gisee defe naa defoon nañ ci dundam radiallahu anhu wa arda xeex yu méttee métti xeex bii ca la bokk maarakatu Ulays ca la bokk maarakatul Yarmuk ca la bokk maarakatu Bani Xanifa ca la xeex yu bari yoo xam ni benn bu ca nekk boo ko jàngee ni mu métteeg ni mu taree wax dëgg yàlla métti woon na ci jullit ñi lool ba jigg dayoo waaye nag bu ci mënti doon borom bi subhanahu wa ta'ala day defal tawfiq ñi gëm yàlla tawfiq ji mooy gis nga jullit ñi bi ñu dikkee di xeex ak waa force fekk ñoom am nañ lu ñuy tuddee al manjaniq manjaniq léeg-léeg ñiy jàng dinañ koy gis ci téere yi venant bu ngeen xoolee livre yi jàngale lugal arabiya wala dictionnaire yi da ngay gis benn affaire bu ñu dessiné mel ni fit mu tudd manjaniq manjaniq benn genre machine la machine bi gis nga bu ñu ko tegee genre quatre plan lay doon buy tibb boobu amuñu ay pistolet boobu amuñu ay bombe boobu amuñu ay genre de combat yii waaye gis nga jamono bu nekk ak jumtukaay yeneen di yàlla defaral gis nga man janiq gis nga peel bi tibb di gas suuf ni muy mel noonu la ku dëgg mal man man janiq di mel ponkalu xeer woo xam ni fukki nit ak juróom daanaka ñoo koy àttan wala juróomi nit ñooy yëkkati xeer wi dugal ko ci biir man janiq bi defar nañ machine bi noo xam ni gis nga buñ ko wëndeelee xeer wi ci ginnaaw lay tëbee rek sànni loolu la lan ma taxoon gars yi daan ko def su ñu defee lu tuddee tata muy xisaar xam nga tata bi jullit ñi mënuñu koo tijj te mënuñoo dugg ci biir léegi man janiix rek nga mën a xeex ak ñoom gis nga man janiix bi dañ koy monter fële ca gannaaw xiiral machine bi ba mu xiir rek boo sànnee xeer wi day tëb xam nga xeer woo xam juróomi nit su kàttan ko comme comme daal comme laal nga dee su ko defee xeer wi day tëb ba tiim xis bi ñu yor rek tàbbi ci biir benn lum dajal ci ay matériel dana ko yàq. nit ku mu fa fekk dana ko rey lu mu fa romb dana ko dana ko wax ñu moxañaate su ko defee façon boobu yàlla defal tawfiq jullit ñi mënuñ ko waaye nag yàlla wan leen ay nit yoo xam ni dañoo bañoon romain yi waaye nag ñu mañ googu ñu kaw sotti ko ci kaw ànd ak jullit ñi ba jàngal leen xeet façon boobu moo tax xeet yu mel nii bokk na ci mbir yi nga xam ni Aboubacar kontaane woon na ko lool ci Khalid ibn al-Walid te lépp mi ngi nekkoon ci ak njiitam ak as-sahabiyul jalil Abu Ubaydata Amir ibn Jarrah yii nag boo gisee ma di la ko nettali mooy ngir nga xam ni uli ba'sin shadid maanaam ay nit lañu woon yu tar yu métti yu soxor lool ci jullit ñi koo xam ne tiim ab jullit fees ko léegi safu la ndax fi seen xol yeggoon ci bon ak bañ ko gëm yàlla sunu boromu ni su ngeen toppee day di ngeen am aw yiw waaye su ngeen wanee gannaaw kat yuadibukum adaban alima borom bi mu ni dinaa leen mbugal mbugal mu metti sunu borom mu ni laysa nekkul ala al ama di ñeel ki silmaxa xaraj bàkkaar ci bañ a dem jihaad wala ala al araj ki laggi amul bàkkaar ci dem jihaad ñàkk a dem jihaad wala ala al maridi xaraj ki feebar tamit amul bàkkaar ci bañ a dem jihaad fii lii la borom xam-xam yi di tuddee al aadaru sharciya fi tarki ljihad ngant yi nga xam ne sharia nangu na ko pour nit ki bañ a dem jihad ki ci njëkk mooy al ama silmaxa xam ngeen ni silmaxa amul ay bët te ko amul ay bët wax dëgg yàlla boo duggee ci jihad ji mën naa metti ci yow képp koo xam ne silmaxa la rek borom bi nee na may naa ko ngant te wallahi boo seetloo ci ngay xam ni maanaam ngëm yàlla ci boppam su xësee tàbbi ci xol mën naa def loo nit ki lu baax lu ne da ngay silmaxee ci seen jëmmi bopp am na ci ñoo xam ne ñoom dañ daan bañ ne dañuy dem même buñ dee baax na bokk na ca abdullahi ibni ummi maktum am na ci borom xam-xam yi ñuy wax ni sax ci xaadis yàlla istishhaade am na ñu wax loolu ca la faatoo am na ñu wax loolu wa même bu ca faatoo wutit bokk na ci ñu doon xëcc ne day dem jihaad te silmaxa la woon xam nga silmaxa moom yow xamoo fooy sa fooy fooy jaar waaye ngëm yàlla ci boppam moo dul bàyyi ki gëm yàlla lu dul da koo def loolu lépp lu baax ngir bëgg a tàbbi àjjana al ama wala ala al araji xaraj ki làggi làggi nag mën naa nekk làggi loxo mën naa nekk làggi tànk mën naa nekk làggi gu tee nit ki xugge wala yu demee noonu yépp lépp loo xamante ni sama ab làggi la ci cër te nattu la bu sunu borom di teg li ko li ko soob ci ay jaamam loola mën naa tee dem jihaad te moo ne kat day am nañu làggi ñoo xam ne dañ daan fipp ni ñoom dañuy dem jihaad ah amr ibnil jamuux ca la bokkoon sunu borom ni wala alal marid xaraj ki feebar ki feebar nag borom xam-xam yi nee nañ mooy feebar boo xam ni dafa sàlloog nit ki wérul feebar boo xam day wér nag jamono bi nga feebaree mën nga bañ a dem jihaad waaye boo wéree da ngay dem wallahi boo jàngee siira day saxaaba yoo xam dañ doon feebar jihaad am ñu wér-wérlu xam nga bu doon noonu da ngay gis ni maam nit ki même bu feebarul sax day feebar feebar lu jamono jihaad saxaaba yi da ngay gis koo xam ne day feebar bu wóor ko ni feebar ngant la mu wér-wérlu ngir bëgg a dem jihaad yi boo gisee ma di ko wax ak ak ak aw aw aw aw ab yar la buy dal ci sunu kaw buy tax ñu xoolaat sunu ngëm ak sunu pas-pas gis nga ngëm yàlla ci boppam du bàyyi ku gëm yàlla lu dul lépp luñ ni lu baax la même bu ko mënut dana ko jéem loo ngëm yàlla moo mel noonu dafa foor xam nga saxaaba bi njaalo kenn fekkewu ko mu ñëw boole yonent bi yonent bi ni ko yow da ngaa dof jógal fii mu mënul muñ loolu da ngaa ëmb bàyyil ba nga am doom ñu doog lay dóor diirab weer yooyu yëpp dawut làqatuwut dellu gannaaw ti parce que ngëm yàlla ci boppam tàngoor yi mu àndal saa bu boyee ci xol balaa fay dana def loolu nit ki la bëgg ci lu baax wala ala al marid xaraj ñi nga xam ne ñoo feebar xam ngeen ni ku mel ni julay bii ba ak ñeneen ak ñeneen bokk nañ ci ñi feebaroon waaye teewut dañ doon dem jihaad sunu borom ni wa man yuti allaha képp ku topp yàlla wa rasulahu topp ab yonenteem yudxilhu yàlla dana ko dugal jannatin ajjana joo xam ni jannatin ay ajjana yoo xam ni tajri day daw min taxtiha ca suuf ga al anhaaru ay dex ay sawnde sunu borom ni wa man yatawalla ku wane gannaaw bañ a jihaad bañ a topp yàlla ko bi yonenteem yuadibhu adaban alima yàlla muy dana ko mbugal mbugalu metti baatab jihaad nag jàngalekat yi ñi wuñ koo wax ci jamono bi ñu toll ndax nee na ñee àddina bi fi ne daa toll foo xam ni ah boo nee jihaad ñu ni terroriste ñu ni nangam gis nga baatab jihaad bu soobee yàlla duñ bàyyi di ko wax lu dul insa dafay ñëw ba jóge fi gis nga mu insa ñëwee ba jóge fi na nga xam ne léegi moom sayee moom jihaad moom dootul amati lu dul àddina nar a tukki dinañ ko ne di wax jihaad nit ñi nag kenn ku nekk la ngay commentaire noo ko commentaire ko sa affaire la yow borom xam-xam wala ndongal xam-xam warul am ku muy sedd ba tax dëgg ak yàlla gi mu bañ koo leeral nit ñi jihaad laa ni du fi jóg ba yowmal qiyaam yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jihaad du fi jóg lu dul yàlla daa yebal mbooloo mi nar a mujjee jihaad nar a ànd ak Isa nga xam ne buñ ca paree moom yàquteg àddina doo nga ciy tof waaye jihaad dootul amati foofu la jihaad di jeexee amma benn waay boo xam ne dafa jóge fële dem takk ay bombam am fa mu dugg ndax jullilaam du jullit loolu suñu yoon néew ci ñun ndax jihaad la ko tuddee tuddee ku problème am la après na ko xool moom moo xam la muy def lan la ñun loolu concerné wuñu diw sàngam ñoom dañuy jihaad ak jihaatuñu loolu taxut ma jóg man li ma tax a jóg mooy jihaad ci boppam du fi jóg ba àddina tukki yant yàlla bi nee na saa bu ngeen bàyyee jihaad yàlla dana roof ci seen xol yi ak tappet al wëhan ñu ni ko luy wëhan mu ni wëhan mooy tappet seen noon yeleen ragaloon tey dañ leen di ñeme di leen cokkaas su boobaa yonent yàlla bi nee na yàlla day tàggat seen noon mu ñëw tiim leen di leen manipuler nu ko neexee gis nga yàlla subhanahu wa taala ba tey am na ay jaam yoo xam ne li ñuy def ci kaw suuf jihaad la tudd léegi nag ñu bàyyi xel ni jihaat it nag du benn waaye jékki-jékki jug fee rek kër yi ay affaire influence ay nit ñi acca kaay la ñu jihaat déedéet mbir mi nag demeewut noonu jihaat moom du fi jug bu soobee yàlla te du ñu dañ di jàpp ni tamit njàngaleb yàlla la akub yonenteem ci alquran fii ba addinay tukki fii ba yàlla yi wal buftu bi du ñu dañ di ko jàngale waaye nag jihaat nag du am mbooloo ñooy jékki-jékki ba mu yàgg rek créer seen association defar rek daal dekkal jihaat déedéet du ay nit ñooy am lu leen naqar rek diw influence diw diw diw ñu daal daje daal di koré déedéet jihaad taxawal ko dafa am ay charte jihaad taxawal ko daa am ay charte dafa am ay mbir yoo xam ni su dajewut jihaat mënul am loolu tamit nañ ci bàyyi xel loolu du ragal de waaye loolu mooy njàngaleb lislaam bëgg a faj sa mer wala am la naqari ba mu tax nga yàqate wala di tojate wala di bombarde ay nit wala déedéet jihaad dafa am aw yoon wu muy jaar yoon woo borom xam-xam yi xam nañ ko fuqaha yi jàngale nañ ko su ca jaaree ba taxaw nag loola tudd jihaad ku ca faatu da ngaa shahid comme shahada gi nga doon dégg ci alquran benn la xam ngeen ni ay jamono la amoon ca Afghanistan amul ci werante yi borom xam-xami àddina bi yépp dëppoo nañ ci ni jihaad la moo taxit waxoon naa leen ko ci benn dars yi paas ci dars yi paase yàlla wane na fa ay kéemtaan yoo xam ni nit ñi duñ ko wax ah France Inter xawma France Inter la xawma seen rajo RFI du ko wax France Inter du ko wax Jazira du ko wax keneen du ko wax am na benn borom xam-xam bu ci taalif benn téere tuddee ko ayatu rahman fi jihadil afghan kéemaani yàlla yi feeñ ci biir jihaadu boobu Russie xam ngeen ni jamono ba ñuy xeex tamit kadalik maanaam faw borom xam-xam yi xool ba xam ni lii kat jihaad la tudd li may fàttali sama bopp di leen ko fàttali ay sentiment nag bu mu nuy yóbbal maanaam mbir mi l'islam du bërim sentiment de déedéet wax dëgg yàlla li war a am am na li ñu war a jàngale dañ koy jàng waaye bu kenn sentiment di ndax islam amul ay sentiment maanaam ñii def nañ lii kon nañ leen def lee déedéet mbir mi du ay sentiment du ay fayantoo mbir mi tërul yàlla akub yonenteem la sallallahu alayhi wa sallam jihaad joojee nag képp ku ca faatu jàppali dafa shahid léegi nag loolu daanaka xaw tuuti kon ñiy jàngale diine moom kuy jàngale bay wax aaya ju wax ci jihaad sax da nga koy moros rek jàll ndax ba gaa yi naan lu tax ngay wax ci jihaad ahan kay fii ak yàllaa ngi ciy wax akub yonenteem te dañ ko ne di ci wax bu soobee yàlla xanaa bu ci alquran noppee dootu ci waxati wala xadis yonent bi waxatu ci te loolu mënul am waaye fii ak alquran mi ngi tudd aaya jihaad fii ak xadis mi ngi tudd aaya jihaad fii ak ña koy tekki di wax aaya jihaad loolu moom na am waaye nag na tege ca yoon wa ñu xam ni nangam jiikat mooy sart yi jihaad faaw ñu daje mu daje jihaad dooga am borom bi subhanahu wa taala aaya ji nag di aaya fukkeel ak juróom-ñett yàlla daf ciy félicité nag waa bayaatu sajara allahu akbar maanaam lii nag mbokk yi mooy félicitation dëgg nag maanaam baat boobu ngeen di wax félicitation arab di ko wax hani an lak ah sum waay ñeenaa la de hani an lak mooy tolloog félicitation ci français gis nga félicité dëgg dëgg dëgg nag la yàlla defal waa sulxul xudaybiya moo tax mbokk yi aaya ji wallahi damay wax ni aaya ju seddoon xolu saxaaba yi la xam naa ne ñun fekkeewuñ ko waaye aaya ji moom seddoon na seen xol xoolal yàlla ak ni mu kaweek ni mu fooree ak ni mu màggee ak ni mu ñàkkee ay ayib ak ni mu baaxee ni mu baree yërmande soo ko jaamoo sax ci yërmandeem nga ko jaamoo nga def benn affaire mu yónni jibril mu ñëw ba ci yonent bi ni ko damay félicité sa gars yi tey allahu akbar félicitation yéen ñëpp maa ngi leen di félicité laqad radiya allahu yàlla nee na kontaan naa man yàlla maa ngi leen di félicité laqad radiya allahu yàlla félicité na kontaan na gërëm na anil muminina ci way gëm yàlla yi jamono ba nga xam ne yu bàyyiunaka ñi ngi jaayante ak yow taxta sajara ca ron garab ga allahu akbar yàlla mu ni yéen ñëpp félicité naa leen moo tax yéen tuddee wax laa yaliju naara rajulun baayaa taxta sajara ah ku fekkee woon jaayante ga da yow bu nga xam ne mucc nga ci sawara mbokk yi imaginel kuy dund faatoogu ñu ni ko yow moom xawma lan waaye sawara moom doo fa dugg waaye sawara bu ñu ne doo fa dugg sëñ bi yow looy wutati lan lan yow moom sawar doo fa dugg moom xaw ma nag luy xew ndax da ngay jihaat da ngay tànk bi dana damm xaw ma di nga fi feebar xaw ma di nga fi ñàkk say doom xaw ma di nga fi am soxna doo ko fi am yooyu moom sa problème la waaye sawara moom xamal ni garanti nañ ne doo fa dugg allahu akbar moo tax ba xaatib ba ba ba ba waaja waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaatib dina tàbbi sawara ndax jëf ju bon jim ñuy def nangam nangam yonente bi ni ko kadabt waxoo lu am de ku fekkee woon na keroog te keroog ku ko fekkee doo tàbbi sawar est ce que xam nga ni saxaaba yi am na ci ñoo xam ne jot nañoo def ay njuumte comme ni njuumte nekkee nit waaye njuumte yooyu seen moroomu saxaaba sax du ci ñimee wax xam nga lu ko waral mooy fekkee gi nga fekkee nangam gis ngeen mistaax bañ naan ko yow yow mistaax lii ngay waxal Aïcha Aïcha mu ni bàyyi leen jàmbur parce que fekkee na Badar moo tax ma di leen wax ni mbokk yi kenn ku ci nekk na ko boppam gën a yitteel walis moromam gis nga loolu doon am ba tey mi ngi am loolu mooy lan mooy nit dana def benn jaamu yàlla xamoo ko xawma ko keneen xamul yàlla gërëm la ca ba wallaahi faux pas boo defati mën na koo foog loolu nañ ci bàyyi xel doomu aadama mën na am benn yiw bu mu def yàlla kontaan ca moom ba faux pas bu mu def mu fompal ko ko léegi yow man xaw ma sama bos yéen kenn xamut bosam keneen keneen xamut bosam kon loolu nit ki nay maandu ci lu baax daal nañ ni baax na lu baaxul nañ ni baaxul ku def lu baax ñu ni def lu baax ku def lu safaan ñu ni def nga safaan amaa di tag seen nit ñeeg di leen àtteeg ku nekk nga wutal ko classement ba mu war a dem mel ni yow moom alaxira liste ba yow la ko yàlla jox ah déedéet yooyu moom bu ci kenn dugg musiba dëgg la moo tax du ma dañ di takraar kàddu gii may wax nii ñii yàlla gërëm na leen laqad radiyallahu yàlla nee na gërëm yàlla gërëm na kontaan na anil muminina ci ñi gëm yàlla ña id jamono ja nga xam ne yu bàyyiunaka ñu ngi jaayante yow taxta sajara ca ron garab ga jaayante googu defe naa nettali woon naa ko ci xisab sulxul xudaybiya nga xam ni yonent bi saa sallam dafa ñëwoon bay jub si màkka coow am mu yebal Othman foo information ñëw ñu ni ko Othman faatu na yonent bi mer daal ni saxaaba yéen ñëpp kaay leen ñu jaayante ci la Ousmane dem nañ ca dem moom kay Ousmane moom bu soobee yàlla bu faatoo ñun ñëpp ca nar a topp mbaa lañ taxaw tax du woon a jóg danañ ko def ndeke xabaar ba wér loolu da lay wan ni kon ndekete yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam xamut kumpa lu dul li ko yàlla xamal kon keneen ku koy woote moom dëndul yàq sax benn seconde ci sa waxtu yow ci ci suñu waxtu di wax ci yow ndax bu yonent bi xamoon kumpa du nekk di jaayante effort bi yëpp mu def ko ndekete yooyu xabaar ba gars yi dañoo jékki-jékki rek seen Ousmane muy ñëw ak gileemam kenn gëmewu ko parce que jàppoon nañ ñi deen ndax moo war a ñu jaayante nga gis saxaaba yu baax yi ku mel ni salamata ibn al akwa mu ni man pour yàkkamtee dem jaayante naag yonent bi trois fois yonent bi naa yéen mbooloo mi kaay leen jaayante salama nee na ma porox ndol dugg ci seen biir jaayante comme ñëpp buñ paree yonent bi ni yéen ma leen mbooloo mi ñëw de mu ni ma porox ndol duggaat ci seen biir pour wane ni man li may def gëm naa ko moo tax yàlla ni fa alima ma fi qulubihim yàlla mu ne li ci seen biir dënn yi xam naa ko sérieux gi ci nekk xoolal yow jaayante benn yoon doy na Ousmane rek ka fi nekkul yonent bi yëkkati loxob càmmoñam ni eh Ousmane mi fi nekkul besama ngii sama besa ngii maa ko jaayanteel sallallahu alayhi wa sallam ah benn waay ñu naan ko kaay jaayante mu ni waay man taluma ay jaayante waay man sama gileem gi réer ma di ko wër nga naa ma ay jaayante yonent bi ni bàyyi leen ko rek kooku de bu soobee yàlla moo gileemam koy ànd dee te noonu la ko yonent bi waxee noonu la amee saaxibul jamal al ahmar kon jaayante googu bi mu amee ba gaa yi nag nar a jóg ci lañ seen Ousmane di ñëw xam naa ni garab googu moom nee naa bu saxoon Sénégal moom waxuma la waxuma la lekk xob ya waaye danañ ko ngereñu ba sulli reen ya defe naa yéen xam ngeen li ma wax de garab gii ca la yonent bi defee woon nangam ca la aaye félicitation bi wàccee woon bu nekkoon Sénégal ma ni la dinañ ko lekk ba ngereñu ko maa la ko wax ngereñu reen yi lépp sulli reen yi lekk laa wax ah yow fii Sénégal benn ngi gis lañ naan bàyyi diw moo fi toogoon doon jàng alxuraan rek mbaa bàyyi diw moo fi wàccoon def nangam mbaa bàyyi diw moo nangam sum waay nga gis gaa yi dañ koy wett di ko gis nga gis nga kaw kaw yi yéen kaw kaw yi ñun kaw kaw yi boo demee ci àll bi jamonoy njéeréer da ngay gis njéeréer dañuy ñëw sum waay lekk garab gi bay ba koy ngereñ wallahi fii Sénégal da ngay gis ñu di ko def te xoolal gii garab ndeysaan moo tax ñaari riwaay ñëw na ci garab gi benn bi imaamul buxaari mi ngi koy nettali mu jëlee ko ci taariq mu jëlee ko ci abdurahman nee na benn bis nee na abdurahman nee na damaa àndoon ci am mbooloo muy aji nee na menn mbooloo taxaw ñi naan garab gii di ca la yonent bi doon jaayantee nee na bi loolu amee ma daal di ñibbisi nettali ko Saïd ibnil Musayyib Saïd ibnil Musayyib ni ñooñoo ñemee yàlla man sama baay fekkee woon na ba ñuy jaayante te sama baay moo ma nettali ni ma ca déwén sa ñun ba ñuy aji romb foofa xàmmeetuñ garab ga xamatuñ gan garab la fàtte nañ mu ni ñun waa kër yonent bi saxaaba yi ñoom xamuñu garab ga yéen ngeen ñëw ci ginnaaw ngeen ni garab gaa ngi nii yéen a ñemee yàlla waay ama beneen riwaaya bi Omar ibnul Xataab moo romb seen ay nit sam waay ñii di barkeelu ñii di witt ay xob mooy affaire sénégalais yooyu rek ñii di witt ay xob ñii di xasta garab ga Omar ni lan moo xew ñu ni ko garab gii la yonent bi jaayante woon mu yebal benn waay ni ko demal nga goral ma garab ga sullil ma reen ya puur ko allahu akbar moo tax dinaay wax ni Omar ibn al-Khattab lamma maata inkasarat quflu baabil fitna ngomb li nu woon rat fitna tëj ko ba fitna yegsiwul ci lislaam keroog bi Omar faatu la ngomb la ñu tasar toj wallahi baare na lislaam ci ay mbir yu bare bare bare yoo xam ni kéemtaanu suñu borom la ci woon moo tax Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ku bañoon yu mel noonu te loolu nag amut de ma wax leen ko loolu ci li daganut ci lislaam garab gii bàyyi doo fi toogoon ak garab gii fa la yendu woon ak garab gii fa la nangam ak ngi gis gii fa la nangam nangam fi mu ne nii may wax ak yéen. am na barab yoo xam ne boo fa demee ay garaba nga fa dañ koy tawaaf comme ni ñuy tawaafee kaaba gi maa la ko wax mi ngi am ba tey de garab goo xam ne boo ci wittee nangam sa nangam nag moo ne yonent bi Madina aka bari woon garab yu mu daan yendu aka bari garab yu mu daan naan te loolu saxaaba yi daawuñ ko ko defal magam di ko defal Abubakar di ko defal keneen déedéet xeetu tabarruk yooyu barkeelu yooyu islaam nanguwu ko ñun ñu ngi fàttali gis nga bokkaale yàlla ni mu garaaw yi ñu ngi fàttali bi ñu nekkee booy ne ca daara jay jàng da ngay ñoo xam ne saa bu ñu ñëw saa ne ñëw ci ay sëriñ ki ñu naan mooy sëriñ bi bu ñu ñëwee fekkuñ ko fa fekkuñ ko fa de xam nga ñu def dañu dem ci marakis bi laax ñu yëkkati marakis bi ko suuf si ne ci biir marakis bi ñu jël ko dem seen yoon maanaam nit ñi dañoo àgg ci ndofe moo tax gis nga buñ la jàppaloog dof dëgg dëgg dëgg da ngay jàppaale da ngay jàppaale bokkaalekatu yàlla maanaam buñ la wërloo ay dof foo gis dof andil boo gisee bokkaale katu yàlla boole ko ci mbooloom parce que maanaam bokkaale dafa dafa dafa nitewut dara dara dara yow xanaa nit sax bu ñu jël suufam ñu jël suufam sa gën a kaw waaye suufam si nekk ci yoon tànkam ca dàll ya loolu sax wax dëgg yàlla xanaa yow la gën a suufi ngay jël xanaa booy jël suufam sax nga jël suuf sa war da ca poosu dëgg ba sax ba man doomu aadama yi dañ dul seetlu sax li ñuy def loolu dafa xaraam ci lislaam barkeelu ci daal li bàyyi diw yeeg barkeelu ci daraay bàyyi diw jeeg barkeelu ci garab gi bàyyi diw nangamoo nag place bii moo fi nangamoo nag yooyee yépp l'islam daf ko bañ islam da koy tere law kaana xayran la sabaqana sahabatu ilay amul fenn fenn foo xam ni sahaaba yi daanañ barkeelu ci lenn ci sahaaba yi seeni morom déedéet ba ci abubakar yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam am na ci yu dagan ñu defal ko ko parce que yenn ya def nañ ko ci kanamam mun da dàq ko ça veut dire que bu ba bu bonoon dana ko tere waaye bu doon lu ñuy defal keneen la saxaaba ya gis nañ ni yonent bi Abubakar a toog ci seesam bi te daawuñ ko ko defal al imam al buxaari imam ibn hajar boo delloo ci bulughul maram ca suma jumut kitaabul libaas wa kitaabul janaiz kitaabul janaiz nettali na fa benn genre manto bu yonent bi amoon sallallahu alayhi wa sallam boo xam ni léeg-léeg saxaaba yi ku ci masaana feebar kenn ci soxna yonent bi moo ko yoroon buñ ko masaana xooj ci ndox buñ la ko joxee boo ko naanee rek même bu sa biir doon métti day wér loolu xadis la bu wér yonent bi wattu na séddale kawar gi ah gàjju na jox benn saxaaba ni ko demal tuur ko waa ji ni ko fett naan ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen yeneen yooyu nag borom xam-xame aqida yi ñuy wax ci yonent bi la yem sallallahu alayhi wa sallam ci ay firnde yu bari yuñ ko amal ndax tabarruk kenn du ko def lu dul ci aasaar yi dagana def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te it nag dafa am nu koy defee te kenn du ko defal keneen ndax Abubakar kenn daawu ko defal Omar moom nga xam ni moom mooy jàmbaar ju mag ji moom boo ko defaloon bu soobee yàlla bu la dóoree bu ëllëgee doo ko tollanteeti gis nga waaye yooyu moom kenn du ko ci falayam ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ni fa alima sunu borom mu ni fa alima ma fi qulubihim yàlla mu ni xam naa li nekk ci dëmm saxaaba yi ñaari yëfa nga fa woon nag benn bi mooy ak sincère akuk sérieux akuk dëggu ba ca des mooy aw naqar wuñ amoon ci jàppoon ni yonent bi pacte yi mu doon siñanteeg yéefar yi baaxul ci ñoom kon jamono bële ñuy def sulhul hudaybiya fekk na ak ñagg-ñagg mi ngi seen xol waaye jamono bi ñuy jaayanteeg yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam fekk na moom imaana fees dal seen biiri xol fa alima ma fi qulubihim moo tax mu ni fa anzala sakinata alayhim yàlla wàcc ci seen kaw ak dal wa athaabahum mu yoolal leen fathan qariba ak ubbeegu jege ubbeegoogu mooy bañ jógee ci sulxul xudaybiya rek ca lañ dal ca fatxu xaybar ubbi xaybar te xam ngeen ni xaybar lan fa jëlee ci alal bul xam nu mu toll maanaam yàlla mu ni kontaan naa ci yéen maa leen di félicité ci aaya ji waaye di leen remercier fatxu xaybar moo tax borom xam dañuy wax ni yàlla kontaan na ci ñoom dig leen àjjana ba noppi nag mosal leen allahu akbar mbokk yi yàlla ku mën a fay la kontaan naa ci yéen maa ngi leen di félicité maa ngi leen di remercier ba noppi anzala sakinata fi qulubihim ba noppi athaabahum fathan qariban ba noppi ni leen du ngeen tàbbi sawara mbokk yi lu baax rek a sakkan lu baax rek moo sakkan gis nga de athaabakum fathan qariba yàlla mu ni ma ubbi leen ubbi gis nga xaybar lañ fa jële ci doomi alal xaybar ay juif ñoo fa nekkoon or baa nga fa tàndarma yaa nga fa ba loo bë maanaam bokk na ci li gën a metti juif yi ci taarix mooy fatxu xaybar gis nga juif yi ci àddina bi dafun de dafun de ni nga xamee histoire la nga xamee histoire gis nga bokk na ci yin gën a eenee jullit ñi mooy fatxu xaybar een boobu nag yàgg na jiitu na yonente sa salam waaye nag een biñ ko gën a een ci jamono yent mooy fatu xaybar ndax ay juif fa nekkoon ñu génn leen dàq leen yuxribuuna buyutahum bi aydihim wa aydi lmuminin suñu borom ni faa tabiru xool leen rek ngeen seetlu yaa ulil absar gis nga de dàq leen dàq gu métti nangu seen alal ya yëpp daal di koy séddoo mooy wa asaabagum yàlla mu ni ma yoolal leen fatxan qariban ubbeegu jege lool yàlla mu ne yemul ca loola de wa maganima ak màng moo xam ni kathiratan dafa bari lool yaxudunaha jullit ñi danañ ko jël loolu mooy bépp màng bu nar a am ca gannaaw lépp maa leen ko dig maanaam yàlla mu ne kontaan naa ci yéen gërëm naa leen bis ni ki tey tàbbal naa dal ci seeni xol musal naa leen ci sawara mosal naa leen ci alali àddina ji allahu akbar musal naa leen ci sawara mosal leen ci fatu xaybar ah lii de bari na mu ni wa maxaanima mooy des na de wa maxaanima kathira màng mu bari moo xam ni yaxudunaha julli ñi danañ ko jël loolu mooy moo tax ibni kathir mi tafsir aaya ji dani lii de mooy màng mu nar a ñëw ba keroog àddina tukki ci la bokk sunu borom ni wa kaana allahu yàlla de nekk na koo xam ne azizan ku not la ci nguuram te ami sañ-sañ xakiman ku xerañ la te xam li muy def moom sunu borom ndax nag sunu borom li muy def tegewul ci ay calcul de sunu borom li muy def tegewul ci ay jabbatoo ko tatoneeg yu demee noonu de waaye suñu borom li muy def tegewul sax ci expérience sunu borom li muy def ci kattan ak xam-xam ak man-man ak sañ-sañ ci la tege ah bu ko neexee rey kii bu ko neexee juddul kii dang damm tànkab kee ah rëq tànkab kële faat bàyyi kee rey yaayi kee rey doomi kii may kee alal xañ kee alal ah lakk kee labal kii ca géej ga ah may kee xam-xam may kee doole may kee sañ-sañ xakima moom dafa xereñ li muy def noonu la yàlla daal boo bëggee noppalu lu mu def rek ne ko ni nga ko defee noonu la baaxee gis nga bu yàlla muri woon kiiraayu kumpa ni kaay leen xool wallaay bu ñu xoolee ci la ñuy xam ne yàlla muy def lépp a baax gis nga léeg-léeg yàlla technique benn natt ngay xool natt bi xoolub yërëmtalu parce que da ngaa xamul li xew borom bi li muy def lépp ci xekma la tege gis nga doomu aadama dinay xëccu dem ci mbir yàlla xañ ko ko muy xañ boppam dara yàlla jox ko ko yàlla teg ko benn nattu mu jàpp ni àddina bi suba ci ngoon lay tukki fekk bu yàlla muri woon kiiraayu kumpa ni ko xoolal li ma def li tax ma def ko wallahi di nga jébbalul yàlla subhanahu wa taala ndax lépp lu mu def rek lu baax la maanaam yow yaa jékki-jékki yaakaar ni feebar bi affaire u mettital wala naqaral wala amul lu tax yàlla def ko déedéet fekk na yàlla li mu def am na lu tax bal am na ci yoo xam nit ñi sax dañ koo gis ndax kat mbir mën naa am nga dox tuuti teg ci sa bët xam ni ndekete lii moo taxoon nangam la xewoon ca sulxul xudaybiya ba mbir ma amee ba yonent bi wane nag la yàlla la ko yàlla xamaloon ci la saxaaba yi doog a xam ne ndekete yonent bi kat lim doon def ci wax yu gu ko yàlla wax yu la waaye du du ay tatane moo tax foofu laay profité ni mbokk yi nañu pas beesalaat nammaat dàggiwaat suñu pas-pas gis nga xëy am ak xëy ñàkk lijjanti mu sotteeg mu ñàkk a sotti feebar ak naqar gis nga yooyu saa bu amee ci yow da nga ko war a tatagal bu yegg si gis nga yàlla inna amrahu kulluhu xayr léppam yiw la defe naa karartu hada almisal alladi askuru adkuru anifan misaal bii ma nar a joxe daanaa ko joxe saa bu ma yegsee ci bunt bi benn borom xam-xam mooy ne te li mu ni naar dafa nekk ci biir kër buur naar bi jàng ba am xam-xam gëm yàlla buur moom lu xew rek naar ni ko qaddara allahu ma shaa faal yàllaa ko dogal yàlla moom lu ko neex lay def dogal yi dem ba mu yàgg benn bis ñu xëy aawab naar aawab buur dee buur am lu ko metti lool naar ñëw ni ko qaddara allahu ma shaa faal buur mer ca loola ah qaddara allahu ma shaa faal yàllaa ko dogal moom lu mu def rek loolooy li baax ndeke buur mer na ci loolu xam nga buur moom bu la meree moom bu soobee yàlla tey doo fi añee buur daal di koy bañ a reyee ci kër gi yabal ko ni ko waral fas wi dama la yónni dëkk sàngam mu yabal ñetti ponkal ni leen dem leen ngeen koj ko bu accès ci barab sàngam rek rey leen naar dugg ci biir néeg bi jël ay bagaasam ñëw ba taxaw ci fas wi yootu dégal gi di yéeg rek fas wi wangentu ko mu ni këlëb tànkab naar dam buur dégg coow li mu génn mu ni lu xew naar ni ko qaddara allah wa ma shaa faal yàlla moo dogal sama tànk bi damm na léegi jeex na buur daal di xool ba mu yàgg mu reetaan mu ne wallaahi qaddara allah wa ma shaa faal yàlla dogal na te lu ko neex lay def gis nga yàlla lii mu def nii moo baax ci yow maa xam nga ni yow boo àggoon dañ lay rey sa tànk bu damm bii moo tax fi nañ am na ñett ñu ma yabaloon barab sàngam yow moom bis ni ki tey daal di koy jël gën koo jegeelaat boppam xam ni kii lim doon wax ci xam-xam la tege gis nga misaal moom ay misaal yu bare bare bare bare bare ci àddina benn waaye ngi nii déposé ci société pour ñu jël ko fa mu am mboolem diplôme yi ñuy laaj ñu xañ ko ko ndeke yàlla dogal na ni société boobu li tee mu tàkk usine usine boobu li tee mu tàkk lakkaale ña fay liggéey ñépp yàggatut te yàlla bëggul nga bokk ca yow mboolem jumtukaay yi xoolal da nga gis benn waay bu jàng ba ni ar yeyoo yëf yi ñëw déposé su ma ay ñu xañee ko ko ah yow sa tubay ji daal lii waaw sa sikkim bi il faut nga lii ko laa ko gis nga yooyu su ma waay amal ful la rek su ma waa ji nee na dafa ñëw mu yéeg ñu jël di ko jël chauffeur mu yéeg essayé machine bi affaire bi normal lool gaa yi gée ko daane ko waaye nag sa sikkim bi moom il faut nga mu waaye daal di wàcc ni ko bu fekkee loolu téye leen seeni pièces man sama wërsëg du ma ko jëndee juyoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di bàyyi kii may nit li moom xam naa ko moom man ngëm gi yegg na foofu gis nga doomu aadama dafay gëm ni borom bi subhanahu wa taala lu mu def rek moo baax doomu aadama mën naa sëy ab diir bu yàgg yàgg yàgg yàlla du ko may doom te wallahi fekk ñàkk am doom googu moo gën ca moom hakim alim xabir imagineel doomu aadama bi yàlla may ko doom joo xam ni yow sum waay kii xamoo nit la xamoo rab la xamoo damitu nit la màggut toog benn place bopp baa ngi toll ni bu maanaam façon yooyu nga xam ne léeg-léeg mu am ci àddina bi loolu nit ki am ko ak bañ a am bu gën loo xam ne yow yaay sonn ci moom amalatu la njariñ moom léegi yaay loru ci moom benn boobu wa amal xulaamu fa kaana abawaahu muminayni janab doom yi ngeen gis ñu rey seen baay nag yi doom joo xam ne su màggee yow moo la nar a rey kooku defe nga ne am ko jar na ko doom joo xam ne sa toroxtaange àddina moo la ko nar a indil ah fa xasina an yuriquma tuxyaanan wa kufran kon xadir rey ko kooku bu màggoon alak ay way juram ila axirihi gis nga yàlla subhanahu wa taala bi mu nattee di dogal xool bàyyi leen xel ni maanaam ba yàllay dogal dogal yi Sénégal amul Europe amul Afrique amul Asie amul sant amul sentiment amul dara amul ba yàllay dogal lam doon dogal noonu la ko doon dogalee ñun dañoo judd fekk fi yëf yi gis nga soo bëggee noppalu tànk bu rëq ak tànk bu damm ak am ak ñàkk ak ñu ñu tafulaat lépp gëmal ni yàlla l'essentiel nag jëlal say responsabilité mooy bul sàggan ba lakk sa bopp bul sàggan bañ sàcc sa alal bul sàggan ba damm sa bopp bul sàggan ba rey sa bopp yàlla dogal na ko pare nga dem taxaw ca digg tali ba nga naan sama yàlla dogal na ko mën a waxta da lay rey de te bu la reyee yaa rey sa bopp waaw kay loolu moom da ngay jël say matukaay ittixaadul asbaab ah wa tawakkul ala al musabbib da ngay jël say sabab ba noppi wàkkiilu ca ka nga xamante ni mooy dogal xam ngeen ni yàlla kay bu ko neexoon kay badar kay saxaaba yi dañuy nelaw biddanti bu neexoon yàlla badar saxaaba yi waa xoola badar yàlla mi am kàttan wàcc ay malaaka ñu kaalawu kaala yu verte ñëw di xeex ba saxaaba yi nee nañ gis naa ñu dee mu wóor ma ni ñii malaakaa leen rey ndax damay ñëw yëngal du ma gis càjjaas ma xool fii gis mu ñuul kukk mooy fadribu fawqa al a'naq wadribu kulla banaan
yàlla mi man loolu mënul bàyyi saxaaba yi ñu nelaw madina ba biddanti 10 heures jot rek mu ne acca gañe ngeen badar jeex na ahan kay waaye yàlla du ko defee noonu de déedéet yàlla du ko defee noonu li wala fi naan yàlla mën naa rey gileem jaaxaanal ko waaye nag du ko def xam nga mën na ko dina ko def xam nga gileem gu dee jaaxaan moom kenn mësu koo gis ci àddina wolof mu ne yàlla mën naa rey gileem jaaxaanal ko waaye nag du ko def kon doomu aadama bi na xam ni borom bi lu mu dogal rek looloo gën bu la mayee xam-xam ak bu la ko xañee loolaay la gën ci yow fexeel nga ragal yàlla su la xañee su la joxee lu mu mën a doon rek gërëm ko moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni wa kaana allahu azizan xakima yàlla ku xereñ la ku not la ci nguuram sunu borom mu ni waadakum allahu yàlla dig na leen maganima ay màng yoo xam ni kathiratan yu bari yoo xam ni taxudunaha di ngeen ci jot al allaama abdurahman assaadi bi muy tafsir aaya ji dane yàlla rek moo kéemaane waaj xoolal alal ji wasaaroo di baccax baccaxi ci àddina bi mu ni am na ñoo xam ne ña nga yore seen alal foog ni ñoo ko moom ndekete màngam jullit ña yàlla moo leen ko dencal ci loxoy seeni noonu allahu akbar xoolal rek ba yonent bi salaa sallam di wax suraaxata naa ko bis bu ñu gañee waa Perse ah buur ba yére yam doon sol mbaxanam or maag yére ak kaan weñ weñ or bi mu doon yore yow lañ koy jox te booba sumwaay mi ngi daw di làqatu ci ci nga xam ne lii wahyun min allah mi ngi jóge màkka di daw di làqatu ji te naan ko bu ñu gañee buur ba ëpp doole ci àddina bi waaye saxaaba yi nag gis nga ñu respecté woon yonent bi lañ te gëm ko imaginel yow ku ñuy dàq ngay daw di génn sam réew ndax néew doole nga naan ki ëpp puissance ci àddina bi bis bu ma ko gañee dinaa jox diw nangam ak nangam loolu xam ngeen ne mënta nekk lu dul wahyun min allah waaye saxaaba yi gëmoon nañ ko keroog bañ demee ba jot ca màng ma ca la yonent bi ni woon fekk yonent bi jóge na fi Aboubacar jóge fi Omar a fi nekkoon Omar mu ni ana Suraaqa mu ni maa ngi nii mu ni ko yaa ngi fàttaliku bala yonent bi dig nangam ak nangam mu ni ko waa mu ni ko fabal mi ngi nii bismillah al sunu borom subhanahu wa taala mu ni yàlla mu ni yonent bi ak ñi ko gëm waadakum allahu yàlla dig na leen maganima kathiratan am màng mu bari lool taxudunaha moo xam ne da ngeen ci jot loolu mooy fii ba addinay tukki mu ni fa ajjala lakum haadi yàlla moo leen gaawantul jox leen lii maanaam mooy li ma doon wax sànq rida gi suñu borom amoon ci ñoom félicité leen moo tax mu jox leen lii moo tax nag mbokk yi loolu ci ngay sukkandiku xool li borom xam-xami aqida yi di wax ni àddina alal yàlla mën na koo jox nit ba nopp fekk nitu yàlla piir la sax teg ci ndax saxaaba yi yàlla kontaan ci ñoom garanti leen tàbbi àjjana mucc ci sawara gërëm leen tàbbal sakina seen xol mu ni fa ajjala lakum haadihi xéewal gi yépp maa leen ko fayee teew mu teew te am na lu des kon ndeke inna allaha yuati dunya man yuhib wa man laa yuhib maanaam am alal ba ba alal di jéggi dayoo tekkiwul ni mooy ku ko amul cër ci yàlla ñàkk koy tekkiwul mooy daa ñàkk cër ci yàlla comme famani sa isabtala rabbu jooju ni ko nit ñi nattee fekk mbir mi demeewut noonu sunu borom mu ni wa kaffa yàlla nee na maa tee aydiyan naasi loxol nit ñi ankum ca yéen ba mënuñu leen def lu bon mbokk yi xoolal yonent bi jóge màkka di ñëw indiwul ay fet indiwul ay fasi xeex indiwul ay ngànnaay yéefar yi préparé ko ba xoolal moo tax yàlla mu ne wala takkoon aayata gis nga aaya ji seetlu ko bu baax yonent bi muy ñëw ma ni la yëre kuy aj la sol yoraale jur gi ñu war a loj préparé wul xeex yorul ay fet yorul fasi xeex woowul jàmbaari góor yi ni kaay leen ñu xeexi loxo yi neen yalang yalang la ñëwee daanaka lu dul ngànnaayul góor guy doxantu xam ngeen mag ñoom bu njëkk même boo xeexiwul am nga ngànnaay booy doxantoo waaye loolu bokk ngànnaay xeex waaye te biñ yegsee waa màkk ñemewuñ leen a song allahu akbar xol googu jekk mu wóor la ni waa màkk bu ñu wootante woon dëkk dëkkaan yi song yonent bi rek bu dee xel dong la ñu ne tey kon tey ñu faagaagal leen waaye yàlla mu ni fa kaffa wa kaffa nee na maa tee aydiyan naasi loxol nit ñi ankum ci yéen lu tax ma def ko bokk na ci wali takkuuna ngir mu nekk aayatan kéemtaan lil muminin ni ñeen ñi gëm yàlla allahu akbar nga xam ni boo xalaatee tey it nag ah borom bi dogal na madina gën jóge yéefar yi ñoo gën a xam ni li ëpp ci jullit ñi jóge nañ madina ñëw topp yonent bi waaw lu foofu bu ñu wéri woon dem madina song seen waa dëkk seen ginnaaw yaakaaroon mën lañ leen a faagaagal xon kay lu tax defuñu ko kaffa aydiya naasi ankum yàlla mu ne maa téye seen i loxo mënatuñoo yëngatooti moo tax gis nga borom bi subhanahu wa taala ku am kàttan la ku man la ku am kàttan la ku man la ku sañ la ci ni muy defee sub subhanahu wa taala moo tax njàngum pas-pas mu set ci boppam moo lay dimbale ci tomb yooyu sunu borom ni wali takkuuna ngir jëf ji nekk aayatan nekk kéemtaan lil muminina way gëm yàlla yi wa yahdiyakum sunu borom gindi leen siratan mustaqima yoon wu jub woo xamante ni mooy yoonu yàlla wi nga xam la tànn nga xamante ni bokkut ak gayril maxdubi bokkut ak wala dallin sunu borom ni wa uxra te am am na lu des ba léegi de allahu akbar mbokk yi xoolal gaa yi li leen yàlla dajaleel laqad radiyallahu yàlla mu ne kontaan naa ci yow ëllëg mu ne àjjana ngay tàbbi fii anzala sakinata alayhim fii maganima kathiratan waadaha ah ba pare ni wa maganima kathiratan yaxudunaha ba pare ni wa uxra timin nag affaire yaa ngi ñëw de jeexagul de gis nga nag yu mel nii mbokk yi daf daan dëgërloo saxaaba yi gën leen a gëmloo nag wax dëgg yàlla ndax olof yi li ñuy léeb naan ku la jox ndékki jox la añ bu la nee dinaa la jox reer wax dëgg yàlla nag boo compliqué war nga ko gëm mooy yàlla defal na leen yii yépp ba pare ni leen nag am na yuy ñëw egsee guddee wa uxra am na yu ngeen xamagut sax nag mu ni wa uxra am na yoo xam ne lam taqdiru alayha ba léegi mën a guleen caa jot waaye di ngeen ca jot jamono jooja muy wax fekk na furs ak rom muy ñaari puissance xam ngeen furs ak rom moom ñi xam taarix ci jamono ju yàgg ja ba tey ñooy ñaari puissance yi mësa ëpp doole ci histoire perse ak rome ñooy puissance yi mësa ëpp doole ci àddina bal sax ñoo doon noggatante léeg-léeg bu ñu xeexee at mi kii gañe bu ñu demee yeneen at keneen gañewaat looloo waral alif lam mim xulibati ruum fii adna al ardi wa hum min baadi galibim sa yaglibuun waxoon naa ko tafsir suratu ruum yooyu moo waraloon léeg-léeg kenn man morom waaye borom bi subhanahu wa taala moom mu ne wa uxra am na màng moo xam ni lam taqdiru alayha ba léegi mënagu leen caa jot waaye dina yegg si de qad axaata allahu biha yàlla gawal na leen ko ndomba di leen xaar allahu akbar loolu mooy sa alal ji yàlla mi ngi ko tekki sa loxol noon mu la koy duunalal xam ndax loolu leer na wala déet maanaam sa alal ji yow yàlla da koo jël maanaam sa bëy wi yàlla jël na ko dem jox ko sab noon mu yafalal la ko ba mu suur mu yëf la ko mooy yéefar yi jamono jooju seen alal jañ doon nekk subhanallah buur boo xam ne xoolal gis nga buur bi sees bi mu toog nii ak li ko wër rek kese kese ay millions yi millions la li dul jeex sees bi rek laa wax mbaxana mi mbaxanam or la kaan bi mu yore or la montre xewagul woon ay lam ak yooyu moo xewoon or la jaaro yi o maanaam buur bi ci boppam rek daanaka fi muy toog mën nañ ci am 15 millions wala 20 millions buur bi kese fi muy toog yow koo xam ne fa ngay toog mën nañ fa am lépp loolu ci ay millions kay ana la ca des ana pale ba ana dëkk ba ana seen magasin ya yàlla mu ni qad axaata allahu biha yàlla mu ni gaw naa ko ndomba di leen xaar wa kaana allahu yàlla musul di dañ di nekk ah yàlla dafa nekk ala kulli shay'in ci loo gis rek qadir di ci am ko am kàttan moo tax ñoom jamono bi ñuy daanu daf leen a bett parce que mooy puissance yi ëppoon doole ci àddina borom bi tàggat jullit ñi ba ñu dugg al qasr al abyad yent bi noonu leen ko waxee woon xawma xawma maison maison blanche ngeen koy xawma ay qasrul abyad yent bi newoon na di ngeen dem ba dugg fa te li kéemtaanu yàlla gi mooy pale boo xam ni ku fa doon dugg pale boo xam ni ku fay dugg tapis rouge lañ lay tegal saxaaba yi dafa dugg ak seen fas yi cokkos cokkos yi parce que ñoom affaire bi yitteelu leen affaire bi yitteelu leen maanaam fii ay dañ koo carré dañ koo meublé tapis rouge moo fi nekk yooyu yitteelu leen abu ubaydata amir ibnul jarrah moo nekkoon amir bi gis nga bi ñu yegsee pour wan la saxaaba yi wallahi daray àddina yitteelu leen woon gis nga boo fekk na omar foli na xaalit fal na abu ubaydata abu ubaydata bi mu yegsee biñ ne ko toogal ci sees bi buur daan toog dañu fii lu may lu may doyee sees bi piliyaanu or ñu ne la toogal te yaay amir de mu ne lu muy doyee loolu lan la koy doyee nanguwu caa toog maanaam moo tax yent yàlla bi nii sallallahu alayhi wa sallam aminu hadihi l umma abu ubayda sunu borom mu ni walaw qaatalakum te lu ngeen ci xamul mooy walaw qaatalakum su xeexoon ak yéen alladina kafaru gaa ñi weddi yàlla la wallawul adbaar danañ daw maanaam keroog sulxul xutaybiya xam nga ñu ngi naan yéefar yi bu ñu daje woon song jullit ñi lu ñu wax sànq dama ne wa kaffa aydiya naasi ankum xam nga yàlla moo téye seeni loxo kon yow nga ne ah kon de bu ko yàlla deful woon xanaa buñ songee julli ñi gañe leen suñu borom mu ni déedéet walaw qaatalakum alladina kafaru gis nga buñ doon jéem a xeex ak yéen la wallawul adbaar ñoom ñooy mujj daw te yow yoroo ngànnaay ah parce que nag gis nga mbokk yi jullit ñi amoon nañ xëy ba de wallahi ab jullit dana taxaw ni xuux ab yéefar rek mu daw xuux laa xuux yàlla xam na ko noonu la ñëwee ci xadis yent yàlla bi nee na yàlla day rocci li ñuy tuddee xëy ba ci yéen def ci yéen waxan xëy ba mooy li ñu leen ragalee woon ab julit laax day dajee kub jul allahu akbar moo tax gis nga boo xamee yi yi doon xew démb nga xam yi xew tey di nga xam ne la waaja ne woon addina wëlbët affaire yi wëlbatiku na léegi maanaam ab yéefar ni mu ragalee woon ab julit ah benn borom xam-xam benn mu arrix historien mooy nettali mu ni gis nga Kisra fa mu toog buñ doon waxtaan ba tudd baatu Amar ibn al-Khattab rek nga seen siis bi yëngatu moo tax mu ni yahtazu Kisra ala kursiyihi faraxan Kisra moom siisam ba dana gërëng rëng rëng ngir dañoo tudd ba turu Omar ibn al-Khattab ci peggam allahu akbar dañoo tudd turu Omar Omar rek lañ tudd fi mu nekk ak fa Omar nekk mi ngi mel ni fii ba ginnaaw waa génn Sénégal loolu loolu yàlla moo ko defoon jullit ñi wegee ko yéefar yi wegee ko jullit ñi waaye gis nga bi ñu bàyyee jihaad bàyyi yi nga xam mooy santaane suñu borom ca la néew ca la far suñu borom mu ni walaw qaatalakum gis nga su xeexoon ak yéen alladina kafaru gaa yi weddi suñu borom la wallawul adbaar danañ wane gannaaw daw te summa laa yajiduna duñ am waliyan péete mu leen di dimbali am péete fu ñu làqu wala nasiran duñ am ku leen dimbali nga ni ha mu ni sunnatallahi mu ni lii mooy doxalinu yàlla wi de nii da la ko daan mas di defee ci kaw suuf jàppale ñi gëm yàlla ndax moo ne wa kaana xaqan ala nasrul muminin sunnatallahi gis ngeen doxalinu yàlla wi de mu ni gis ngeen de maanaam dafa mel ni laay ji dalay wan ni ah waaye yow yëf yi kon doy na waar di mu ni de doy na waar sunnatallah loolu mooy doxalinu yàlla wi ñoom yoruñu ngànnaay yoruñu dara yàlla téye loxol ñee ba ñeme wuñ leen a song nga ne bu ñu leen songoon mais ni mu ni même bu ñu leen songoon jullit ñi gañe leen nga ni ah loolu nu mën a demee mu ni la sunnatallahi nii la ko yàllay defee rek sunnatallahi lii mooy doxalinu sunu borom wa fi la allati bi nga xam ni xad xalat wéyoon na min qablu ca lu yàgg la nii la ko daan defee moom sunu borom walan tajida doo ma sa fekk nag li sunnatillahi doxalinu yàlla tabdiilan ak soppeeku loolu mooy lan mooy ndimbal ma yàlla doon defal ña gëm yàlla ba tey yàlla mi ngi koy defal ña gëm yàlla gis nga loolu laay wax bokk yi ma ni leen gis nga ci buntu ñaan gis nga yàlla mi doon maye ba tey moo fi nekk magasin yañ doon maye ba léegi caabi ya xomaatagut jeexagut te lam doon maye du ko jox kenn ku dul ñi gëm yàlla te yow mi koy ñaan moo ñu le maanaam yooyu nit ki daf ko war a di di di di di di settantal gis nga jamono boo tàlloon de xam nga tey nit ngay tàllal di ko ñaan su waay naan teemaa wax tuuti teem nangam nangam yàlla dérin xam nga ki bari la ba taxaw ci digg penc ni ñaan leen ma kooku kenn la ma sa kenn la ma sa am kenn muy suñu borom bal sax nag boo ma ñaanul dama lay mere gis nga borom bi subhanahu wa taala ku màgg la ku am la di gis nga loolu doomu aadama na koy teewlu ci jamono bu muy jaamu yàlla subhanahu wa taala na koy teewlu yàlla ku am la ku man la ku sañ la wala tatamannaw ma faddala allahu bihi baadakum ala baad bul fi nekk di mbébét li yàlla defal di waay waay man teema waay li am di di di commencé di wax yàlla mu ni déedéet li rijaali nasib ma tasabu jigéen ñi la yàlla sédd na lam leen sédd wala nisaay nasib ma tasab na jigéen ñi yàlla sédd na leen da ngaa bëgg fasalullah min fadli ñaanal yàlla ci ngëneel yi moo tax ab aji gëm yàlla su amee aajo na dellu ci boroomam subhanahu wa taala waxuma dellu làmmiñ ak ñaari loxo waaye dellu xol laa wax teewlu ki ngay waxal xam ni ku am la ku man la ku ami sañ-sañ la même bu la ko nangulul ngay gis ñii nangul na ko yaa ko gisul su fekkee mawaaniul ijaaba amul moo tax sunu borom ne walan tajida li sunnati la tabdila doesul fekk ak soppi ci doxalin sunu borom kon loolu moo nekkoon sunu bind tey incha allah ñuy fàttali sunu bopp di fàttali mbokk yi ni tey jii moo nekkoon bisab juróom-ñeenteel ci shahrullahi al muharram suba la bisab fukkeel yonent bi wooroon na fukkeel ba nisaroon ni dana woor juróom-ñeent ba moo tax borom xam-xam yi boole ñaar yépp mu ngi ñaan borom bi mu boole ñu ci ñi koy woor boole ñu ci ñi muy nangul timit ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee yool bi nekk ci ku ko woor te ba muy wax bisu fukkeel baa taxoon doonte ñaar yépp dañ koy boole léegi waaye nee na ku ko woor yàlla daf lay kaffaaral bàkkaari at mi passé 360 nangam jours yi nga passé nga xam ni jeex na dootul dellu siwaat rëcc rëcc yi nga ci defoon ñu ne la at mi jeex na de sawaay say fooy dem na de waa erreur ya nga defoon nag ñu ne may nañ la benn bis boo xam ni boo réussir di nga dabaatal li nga pertoon ci at mi wax dëgg yàlla mbokk yi wa kaana bil muminina rahima yàlla comme yërmande la ci ñi kër walis nag ñuy fàttalikoo guddi gi di ko màggal ci ay lekk ak ay naan ak bàyyi xale yi di cëppi cëppi te lii may wax maa ngi bëggoon bu baax a baax a baax kuy ku gëm yàlla rek mu déglu ko au lieu que togg di lekk bàyyi xale yi ñuy waddi waddee ka cëppi cëppi bàyyi góor ñi ñuy sol col kay jigéen jigéen ñi di sol col kay góor bàyyi leen ñuy fecca ka wayaka taasu xam ngeen lan moo xewoon ba ñuy fecca wayaka taasu mooy bis bi jiitu na sax faatu Xuseyn waaye ci bis bii mbokk yi ca la xew-xew bu metti boobu amoon nga xam ne tiis la wu màgg wu daanu ci kaw njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul musiba ju wàcc ci kaw njabootu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ju doy ni musiba ji xewoon ci bis bi muy faatu Xuseyn dëgg la nit ñi dañuy wax dañuy wax tam xarit rek seen xel dem ci Karbala mel ni Karbala déedéet affaire bi jiitu woon na ko maanaam mbirum Ashura jiitu na faatu Xuseyn ndax amoon na ci jamono yonent bi waaye nag événement bi ci bis bi gis nga waxtu wii ñu toll tembe nekk ci juróom-ñeent yi di dëgmal fukk booba mi ngi fekk Xuseyn mi ngi woon ci ay problème yoo xam ni kon yëgal ni istishaar bul ko defee ni chia yi def di ko mittit loo ko gajji seen boppal yàgg seen yaram mbir mi du loolu de ni la ñuy dëjal waaye fàttaliku ci xalaat mi waxtu wii nga toll temb jëm suba bis la bu métti ci kaw njabootu yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ña nga xiif ñu bañ leen jox ñu lekk fekk na ña nga mar ñu dox seen diggante ak ndox ma ñuy rey ñenn ci ak njabootam mi ngi toog ndax bañ a xeex ndax commencement bi xeexul woon benn manta la sol toog am na doomam joo xam ne bi ñu koy fett ba muy dee ci kanamam mi ngi toog biñ ko fettee nag ci la xam ne nag fi ne nag jóg jot na ndax Xuseyn nag yàlla da ko defoon kéemtaan goo xam ne maanaam gaynde la woon effectivement sax Muawiya la doon wax gis nga Muawiya bi Yazid jëlee xilaafa gi dañu ko moytul ma Xuseynu de kii gaynde la te wax na dëgg xoolal mbooloo mi ko tiim ni ñu toll waaye gis nga balaa ñu koo rey moo tax Xasan danaan xool Xuseynu ba mu yàgg mu ne ko wallahi fit fit njàmbarte gi la yàlla defal su ma ko amoon Xuseynu ni ko gis nga dal gi nga am ak mën a wax lu nit ñi dégg bu ma ko yàlla mayoon may kenn kenn ku nekk amoon nga ak may waxtu wii ñu toll tembe dëgmal suba mañ la ñi ngi nekkoon ci aw tiis woo xam ne te li gën a metti mooy du Xuseyn kese xam nga ñu war dañuy wax Karbala Xuseyn Karbala Xuseyn Xuseyn akuk njabootam lañ doon faat boobu akuk njabootam daanaka ñaar ñoo ca mucc wala ñett ñenn ñi dañ leen a rawale kenn kam dafa feebaroon jamono jooju moo tax askanu Xuseyn ci kaw suuf ca ñooña la desee wa illaa ña ca sifal leen faaga moo tax Abdullah ibn Omar bi mu yégee ne Xuseyn ma nga jëm Kuufa xam ngeen Kuufa la wante Kuufa la Aliin Falat bi mu déplacé xilaafa gi jëlee ko Madina da ko yóbbu Kuufa daj na fa loo xam ne moo tax Abdullah ibn Omar ni ko Xuseyn yow waa Kuufa Kuufa mooy Iraq mooy tolloog Iraq tey liñ def sa baay def ko Xasan te xam ngeen faatu ko Xasan seen loxo setu ci yow loolu xanaa yeewu la bul fa dem mu génn ay lettre ni ko xoolal lettre yaa ngi nii gis ngeen ñii ñi ngi naa ma faat nañ foofu sunna dañuy doyadal islam dañuy nangam wallahi Xuseyn defar moo ko taxoon a jóg boobu. mu ne ko lii mu bu ma ko tànkam loolu lan laay wax sama borom Abdullah ibn Omar ni ko jaayante na ak sa bul dem mu ne ko faaw ma dem mu daal di koy kott ni ko kon tàggatoo na ak yow eggatee nga dee gis nga de. mu ne ko tàgg toog na ak yow bu yow nga xam ne eggatee nga dee Abdullah ibn Abbas def na ko Abdullah ibn Omar def na ko ñeneen def nañ ko di wane ni maanaam xëy na ku repp day jëli sag dee booba borom bi dogal na ko waaye gis ngeen jamono jooju xew-xew yu méttee méttee métti moo amoon. ci bisab fukkeel ba nag gis ngeen ca lañ faat Xuseyn faat ak njabootam maanaam ay yëf yëfaan yoo xam ne yow léegi ci ngoon rek maa ngi koy wax benn mbokk ma ne wallaahi yëf yi nettali ko maanaam xam ngeen nettali lu métti dafa métti nettali lu métti dafa métti maanaam da wax loolu ay ishaaraat rek doy na ci waaye mbir ma dëgg-dëgg xaqiqatan bu mu la ko waxee ak na mu demee jàpp naa ne boo nekkee borom xol bu woyof doo ko mën a dégg ko loola nag jàpp naa ne boo ko yëgee du caagane am pom wala wala wala nangam waaye góorgóorlu ci la yonent bi jàngal ak ñaanal ñooña yàlla njéggal te ñaan yàlla musal la ci fitna yow mu ngi ñaan suñu borom saa bu suñu borom nammee ci ay jaam fitna yàlla nañ ci yàlla musal ba buñ ca bokk buñ ca naree bokk nañ suñu borom faat moom lay doon ñaan wa ida arata bi ibadaka fitnatan faqbidni ilayk bu dee fitna daa nar a ñëw te man mënuma caa bañ a bokk mbokk yi fitna lu garaaw la est ce que xam ngeen ni fitna moo gën a garaaw rey yàlla mu ne wal fitnatu akbaru min al qatl fitna moo gën a garaaw sax rey xam nga ñun bombardé nañ ko rey na fii dee na ñun dañu jàpp loolu mooy li garaaw yàlla mu ni wal fitna gis nga fitna akbaru min al qatli moo gën a garaaw rey yàlla na yàlla musal ñu ci fitna musal ci sunu njaboot sàmmal na sunu pas-pas sàmmal na sunu ngëm rey ñu ci sunna tàbbal ñu aljanna wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain